njabootuk shérif Abdourahmane Fall Tilala ci njiitalul ki nga xam ne jamono bi moo fi xalifaam di sëriñ Abdul Aziz ànd ak mboolemi rakkam ak njaboot gi ñu ñëw ci Touba ci xalif général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou doon waat jaayante ak sëriñ bi ginnaaw bi fi seen waajur wa bàyyeekoo di shérif Abdourahmane Fall Tilala bi ñu agsee ci résidence Xaadim Rasoul présenté nañ mboolem njaboot gi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir yeesluwaat fas yéene ànd ak moom liggéeyub sëriñ Touba bi keroog bi mu war a indi addiya ji te war a fekk sëñ mag bi poroxaan ñun ñëpp dañ ne ko bàyyil ba bay dem màggalu poroxaan mu ni damay yóbbu sama jëf ba noppi doog a dem màggalu poroxaan ndax man benn mbégte laa am muy sëñ Muntaxa ñoo ngi ñaan sama borom yàlla dott la ay ngërëm ci sëñ Touba ñoo ngi ñaan nga yàgg fi lool te sëriñ bi nag sëñ Abdul Aziz mii moo di taawam kenn génn ko maam Cheikh Rafal mii moo topp ci moom moog rakkam yëpp ñu ngi ci ginnaawam seexi baayam yëpp ñu ngi ci ginnaawam jëwriñ yëpp ñu ngi ci ginnaawam kenn génnul waaye loolu lépp nag ci sa barke ñu bëgg nga dotti ko ay ndam ak doole ak kàttan ndax li bëgg a liggéey te bëgg a yëgal yéenay baayam ji ba yëgal yéenay boppam ji loolu yaa ko mën a may doole ak def ko ci sa poos ndax coow li bari na ak wax ji ak ay gone la fi bàyyi waaye nag Mbàkke koo tungoom musut ñëpp te moom mii am na jom bëgg na sëñ Tuubaa bëgg na Seex Rafaal bëgg na la te yow de ku la bëgg ajam faju na wéetuñu nag ndax sëriñ si Sylla mii mu sëriñ Matar mu soxna Marema Kunta mook sëñ bi mbokk gu yàgg la gu sëñ Tuubaa defoon te bàyyiwu ko Ahmadou Lamine Faye mii di sab taalibe bàyyiwunu ñun ñëpp ñu ngi laxasaayu boot ci ginnaawam fas yéene yaa liggéeyal sëriñ bi li mu am fi Tuubaa pàcc yi mu am ca ba muy sërif Abdourahmane ba tey ci sa kàddu la ko amee sa sa jataay keroog bi nga xamante ne mu ngi woon këyit yi dañu këri Touba ngeen bëggoon am ngeen ko sëriñ Mountakha nu ko jox kon Mbàkke ñoo ngi ñaan nga dotti nu dotti ko doole ak xéewal ba sanc boobu mu mën koo sanc ba sanc yeneen waaye ñoo ngi lay ñaan nag ci barkeb sëñ Touba sa naal yëpp na egg loo naal na ko eggal sa bopp ba naal yeneen naal waaye sëriñ bépp nanga ko may kàttan ndax grand mbubb yi mu indi bàyyi ma waxoon ca kaw rek ni dina leen ay grand bu naar waaye ñu indi ko nag ngir gànnaaru démb ga ak mataar ulub lul kon Mbàkke na ñu ñaanal bu baax bala su buri maaram Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke Bachir na lool ci ñëw gi waaye daal leen di ñaanal ko set sedd rek lañu ñu sonn alhamdulilah xam naa ne bàyyi bàyyi leen alhamdulilah boo duggee bàyyi waaye bàyyi leen alhamdulilah soo ko sedd na si yéen soo ko dal alhamdulilah su boobu seen xel dal alhamdulilah incha allah alhamdulilah dañ gën a ñaan bu baax dañ ko ànd ak yéen incha allah si sax tak alhamdulilah yow yàlla liggéey sañ tuwaat alhamdulilah ànd ko yéen gën a tànn si ànd ak yéen alhamdulilah ñaan rek yàlla may leen incha allah yëral leen kat am leen yàgg leen loolu Amin. Amin. Amin. آمين ginnaaw ziar bi sëriñ Abdoul Aziz Fall mi nga xam ne mooy xalifa njabootug Chérif Abdourahmane Fall Tilala ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ci turam bég na lool ci taxawaayub Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak ni nga xam ne noonu la leen dalalee. waaw jërëjëf euh, ñoo ngi siyaare bu baax a baax a baax waa réew mi ak biti réew di sant yàlla bu baax a baax di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha sa borom yàlla yàggal ko te wéral ko. ba naalam yëpp mu eggale ko ci sagom ba naal yeneeni naal noo ngi siyaar bu baax sunu sëriñ bii nu àndal muy sëriñ Abdou Aziz Fall Tilala xaadimul xaddim di xalifab sërif Abdourahmane Fall Tilala xaadimul xaddim ànd ak rakkam yëpp ak seexam yëpp ak jëwriñam yëpp ñëwoon tey fii fi Touba ci sëriñ Mountakha Mbacké di joxe si boppam sëriñ bi nangul ko dolli ko ñaanal fat ko ni ko demal rek te yóbbu sa pas-pasu baay bi foo xamante ni fi ko sa baay indi ñëpp xam nañ ko waaye yóbbu ko fu gën a kawe foofu kon sant nañ bu baax tey ñaan sama borom yàlla yàggal ko te wéral ko ba naal yi baayam yëpp mu eggali ko ba naal naali boppam te naal yëpp egg ginnaaw bi nu ziare Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir njaboot gi dem nañ ci yeneen kilifa ziar leen ci bërëb bu sell bi di Touba lépp rek ngir gën a yeesalaat kóllëre gi nga xamoon doxoon na seen diggante waajur wa di Chérif Abdourahmane Fall Tilala ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci yoonu Mouride.